livre bu am solo ci marketing ak développement personnel tudd Père riche Père pauvre ko wax Rich Dad Poor Dad ki ko bind di Robert Kiyosaki ñu war leen ci indil benn tunk bu ndaw ci vidéo bi ndem nag lu jëm ci xam-xam bii yitteel na la boo demee ci xalam tv bu telegram di nga fa fekk orientation yi nga xam ni moo lay xamal wàll gii waaye ngir nga xam nag solo xam-xam bi da nga ni topp ba ci njeextal vidéo ba dem som na yàlla bismillah livre bi nu leen présenté di benn livre bu am solo te siiw lool ci wàllu marketing ak développement personnel aji bind ji di Robert Kiyosaki maanaam mooy auteur bi mu ngi ko tudde woon riche dad poor dad ci làkku français mooy tolloo ak père riche père pauvre ci livre bi Robert Kiyosaki am considération ni dafa am ñaari baay kenn ki mooy baayam bi ko jur ñu di ko tudde ci làkku français père biologique keneen ki nag daa nekk baayu xaritam dëkk mu jàppee baayu xaritam boobu ni bàyyi baay baayu Robert ki nag ab docteur la woon ba nekkoon itam te nekkoon itam jàngalekat muy enseignant ci benn université waaye ki nga xam ni moom la jàppe ni ki ñaareelu baayam te mu doon roy ci moom jeexalu sax lycée bay am ay diplôme ci enseignement supérieur bi waaye lépp moo ko jàngal boppam ci pratique au lieu de théorie bi nga xam ni moom lees di jàngale ci école yi moom mu seetlu ni lu bare bari lu mel nii su amee ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk fonctionnaire yi nga xam ni dañu jàng ba am seen ay diplôme di liggéey waaye nekk ñu dépendre ci payoor yi ñu leen di fay saa sunu génne àdduna lu ci bari ay dette lañ fi bàyyi muy ay bor yu ñuy lebe ci banque yi ba ci société yi ba ci nit ñi. mu ni bu dee ñi nga xam ni nag ñoom ñoo jël seen initiative bu bopp taxawal seen entreprise bu bopp di doxal seen business bopp di amal seen marketing seen service yu bopp. di ay commerçant wala lu ñu mën a nekk dañuy gis ne lu ci bari bari ñoom bu ñu génnee àdduna dañu fiy bàyyi alal ju bari mu ni kon li mu gis mooy alal nis kuy amee kenn du ko jàngale ci école yi waaye école li muy jàngale mooy naka ngay mën a nekk kuy liggéeyalaate muy nekk benn yi waaye nag naka ngay def ba am alal école du ko jàngale xanaa kay dana lay jàngal nooy construire benn carrière waaye du la jàngale nooy mën a nekkee aji riche muy devenir riche mu ni loolu tax na ñu baree bari ci jur yi dañuy jàng ginnaaw bu ñu jàngee ba am liggéey bu ñu orienté seen njaboot ci même direction boobu ñu gën ne ci lañuy ñuy orienté seen njaboot te mooy naka la ñuy def ba mën a nekk ay liggéeykat te mooy ñuy liggéeyal keneen moo xam muy état wala muy société wala muy entreprise u kenn ku mu mën a nekk mu ni boo bokkee ci famille boo xam ni dañoo bokk ci classe bu digg doomu bi muy classe moyenne bi maanaam ñu digg doomu ñi day mel ni say wayjur dañu lay jàngal naka ngay def ngir nekk aji ñàkk maanaam nekk pauvre mu ni loolu tekkiwul ne dañu laa bañ mu ni li waral ñu def loolu mooy ci noonu la leen éduqué ndax bi ñu tolloo ci wut alal dañu leen doon jox ay information yu primé léegi nag information yu périmé yooyu moom la ñuy wëy di leen ko jox balaa ñuy dem ñu def foofu benn intervalle bu ndaw mooy li mu bëgg wax fii moo di ne da nga gis benn famille boo xam ni taxul ñu demee noonu maanaam dañoo bokk ci classe moyenne bi maanaam nekkuñu ay pauvre ba amuñu dara waaye nekkuñu ñu riche ba am dara lu ñu mën a dimbale kenn waaye da ngay gis ci seen biir dañuy am ay termes yoo xam dañ koy jëfandikoo mel ni day wane seenug sëngéem wala seenug bayliku maanaam naan borom kala gu ñuul ñàkkul dara bu dee ci lu mel ni réewum Sénégal borom karaw gu ñuul ña dara foofu ñu di ci jublu moom daal lu waay def rek dana am lu mu dunde maam le tànk que rek yaa ngi nekk doomi nit ku ñuul jiru ngay rey sa bopp xamal ni yàlla dana indil wërsëg ñenn ñi di wax naan gémmiñ gu yàlla xar dana ci def lu borom lekk loola wér waaye nag yàlla dafa digle ñu fàggu wërsëg léegi nag loolu dafa nekk ay information yoo xam ne bu ñu ko doon lim dana bari lool bokk na ci itam nga dégg ñenn ñi naan jëru doñ doñ kenn du weesu wërsëgam yooyu yëpp ay dëkk la waaye maanaam mi nu ko dugal wala maanaam mi nu ko jox moo dul maanaam maanaam dafa nekk ay idéologie théologique yoo xam ne nit ki du ko war a gëm ba noppi nag appliquer li nga xam ni moom la ko charia wax te mooy mu fàggu wala moom la ko diineem sant te mooy fàggu lu lew moo tax ku baax di wax naan wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muminin wala muslimin ba bayit ba àgg saggu sàkku lu dagan ju war ci bépp jullit kon boo gisee lu ci bare bari ñi nga xam ne ñooy classe moyenne bi loolu lañuy ñuy joxante ci seen biir mu nekk ay exception yoo xam ni day wone ak bayliku akuk sa ngéemlu ci mel ni daal dañuy yalang ci bañ a jéem dara lii nag la lay wax ni la mooy faral di am te lii nii ñi la koy gëmloo ñoom dañu lay former ci nga nekk pauvre waaye formewul la benn yoon ci nga nekk ku riche bu dee ci sunu réew mi di Sénégal wala ci sunu réewi Afrique yi ginnaaw loolu auteur bi daan ni pauvreté muy ak ñàkk daa mel ni ndono muy li ñuy tudde génétique dañu koy dondante ci génération benn jëm ci beneen génération te li koy sabab nag mooy lu mel ni li ñu la tuddoon lees la tuddaloon léegi mu ni man samay waajur leen ma doon conseiller saa su nekk mooy ma jàng bu baax a baax ngir am ay diplôme ngir mën a am métier mu baax tey métier mu dëgër li moo tax livre bi am solo lool moom ki nga xam ni mooy auteur bi ko bind nag moom bindoon ko ci anglais tuddee ko Rich Dad Poor Dad muy père riche père pauvre li mu ci màndargal nag mooy ñaar ñooñu mu jàppe ni ki ñaari baay te mooy baayam bi ko jur ak baayam bi nga xam ni mooy baayu xaritam boobu bii baay day liggéey nekk nit ki fonctionnaire nekk docteur waaye itam nekk enseignant à l'université wala professeur ci université ba waaye beneen baay bi nekk koo xam ni bu doon ci réewum Sénégal dañ koy jàpp ni ki jàngul ndax amul ay diplôme ni ki ko baay bale amee waaye baay bii mu ëpp alal fuuf moo gën a réussir que baay bee yow mi nga xam ni nag da ngay intéressé wu ci xam-xam bu mel nii téere bii nu lay junjal def nañ ci yaatu yu am solo ndem na mu nga ko boo demee di nga gis orientation yi ñi nga xam ne ñoo koy jàngale maanaam ñoo koy résumé di jàngale xeeti xam-xam yi te muy lu jëm ci marketing dem bëgg nga ko jàng foofu la buntu ba maanaam boo demee ci telegram nga def xalam tv di nga fa fekk numéro yi ñi nga xam ni ñooy jàngale wàll gii te muy lu jëm ci marketing bokk na ca la ñu yaatal téere bi ñu tudde Père riche père pauvre ak yeneen i téere yu baree bari yu jëm ci marketing yooyu dina la dimbali naka ngay fàggoo waaye ci anam gu dagan di jaar yoon te mucc ayib kon ndéem bëgg nga géeju ci wàllu fàggu noo ngi lay conseiller